ci li nga xamante ne moom moo di nag Marie Christine mu àndi nag euh, plat tey jii ndax lënd bu jot noonu lañ leen koy defalee gannaaw ba ñu wéyee ci wàllu santé xool wér gu yaram gi nag dañuy jàll ci li nga xamante ne mooy wàllu ñam gémmiñ rek. mu andi ci wax plat bi kenn gisu ko fi de. wax ji lañ dégg. man dama ci waxati man nekkaat fi di xuloo man damaa meroon bu pare. <laughs> mais bon euh, naan ngeen ko waxtu moo petit plat jot na ci kaw seen euh, plateau yeewu leen tey nag dama leen la benn plat bu spécial muy crevette au gingembre damay ànd ak sama chef cuisinier Ali Baba mu toggal leen ko ñu dellu siwaat euh, bonjour. tey dañoo ñëwoon fii di leen defal gambas à l'orange ak dinjeer euh, soo ko bëggee def da nga soxla poivre soxla ail soxla dinjeer soble ak xorom ak tuuti vanille fekkee am nga ko ak orange ak un peu ok da dagg orange bi comme ça pour récupérer jus bi ci beurre la ñuy def tuuti mais un peu d'huile dégg nga def dinjeer bi def aay bi sare jox ma kuddu kii bois bi après nga def soble yi boo demee ni jàngale les Gambas. Après, mu def jus d'orange ah. mooy jàmm lañ de.

ba suur war ngaa gërëm war ngaa gërëm ñi dugg ci waañ wey waañ ba tàkk na boo lekkee ba suur war ngaa tey defar naa leen gambas à l'orange soo ko bëggee xam ak mën ko da ngay ñëw si école ceci cela Almadies zone 8 téléphone bi mi ngi nekk 33 865 14 58 bon appétit. dafa neex moom sa bon appétit euh, Ali Baba Gueye di ko jaajëfal bu baax moom ak waa école ceci cela ñu toggal ñu lii di euh, crevette euh, gingembre man nag dama nekkoon di siis bijou keroog xeex fi xeex bu rëy waaye bi passé moom a semaine dafa ñëw ànd ak Alié Mbaye ànd ak yeneen technicien chauffeur bi ne ko danduma man léegi les choses ma dépassent franchement mënatuma si mënatuma si lenn daal man. képp si jàpp lim bi jaru ko. lii xam nga ne neex na ku ko xool xam ne neex na kay neex na waa donc yow ci dara. déet waaw man non non man képp lu may laaj sax ñaari palaat yi. ci est-ce du lay def déjeuner tête à tête ak Ali Baba. Ah! après togg <laughs> yi rek man à la dama gédd. parce wu ma ndax bu ñu la joxee émission nga koy def li ngay commenté day fekk nga xam lu muy. nga ñam ko wala lan la. léegi na Marie Christi kon yow yaa koy lekk yaa koy fekkee yaay def yëpp léegi waxal ci li ngay togg. li ngay def nga fas sa kanam gi nii. fasuma kanam de dama ci du ma wax ci lu ma xamul loolu dañ ma ko jàngal xaw ma ci dara mënu ma ko wax. wax ji sax la nag. léegi na Marie Christi ma bàyyi la xadi xadi dina wax ci togg man du wax ci togg gi li may wax benn la dañ ko indi fii nit ñi di ko consensus la nañ ko déggoo rek bàyyi ko ay palaam yéen di àq la sax baaxul àq la Cheikh Tidiane nañ ko bàyyi ak ay palaam mais bon on a remarqué que Alibaba def na ci lii di euh, crevette bi lii di jus d'orange xam ngeen nag crevette dafa doon euh, fruit de mer boo xam ne dafa gaaw a yàqu dafa gaaw a indi li <laughs> keps keps damay teg micro bi wàcc plateau bi la pour wàcc toogal rek <laughs> bu wax crevette dafa doon loo xam ne daa gaaw a yàq te dafa gaaw a euh, indi lii di intoxication ba tax na ñu ngi di diggal saa boo leen koy togg si possible ngeen def ci jus d'orange <laughs> jus d'orange wala ngeen toqal ci tuuti moo togg bi tamit euh, yomb na juste 7 minutes rek <laughs> ngeen togg li di seen euh, crevette en gingembre. man j'ai pas compris euh, loolu nga ciy def jus d'orange bi ak kii. Cheikh nag yaa ngi ñu yàqate. <laughs> <laughs> dañoo kopp dañoo kopp dañoo wax parce lekkuñu ci plat bi. ah non c'est dafa ni mbir mi dafa gaaw a yàqu mais attends. loolu pour conservation bi la wala. day wala non pour conserver crevette bi la. pour conserver crevette bi la xam nga des fois da ngay togg lu bëri nga jël denc ko ci frigo bi war ko mën a waa tàngal ak ñoom it seen te crevette waa da def pat. expliqué ñu lay déglu. ñun dañoo solidaire yow. <laughs> metti de te crevette comme je loo xam ne dafa gaaw a yàq man sax damay fas sama kanam. non Marie maa ngi koy commencé euh, yërëm. mais ñu wax indi ñu Marie Gueye mu wax ñu lu baax ci gingembre ma fas sama kanam. épice la xam nga racine la reine la c'est que ginger c'est dommage Sénégal ñun xamuñu valeur ginger à part defar ci jus dégg nga jus mais c'est très bien bu ñuy defaree jus tamit baax na gingembre dafa baax ci euh, góor euh, tout kuy saxat gingembre baax na ci moom gingembre baax na ku yor métitu biir dégg nga baax na sax ci intestin gis nga ñi am ni souvent ay colopathie nii gingembre ça pique mais dañ leen di conseiller ñuy naan tuuti gingembre ou bien le mieux que ñun gingembre jus rek lañ koy defaree. dégg nga lañ koy jëriñoo ngay def ko ci cuisine bi. parce que gingembre dafa baax ci nit. dafa baax tout point de vue ki tonus musculaire ki ki ki cerveau bi. ku am angine xam nga si ça une saveur piquante. waaw saveur piquante boobu nag ay substance la. yu nekk ci gingembre pour pouvoir euh, faj. Euh, ku am engine euh, ku mun a am ku pour pouvoir faj kuy sëxat dégg xam nga soo woy sëxat tamit corde vocale yi dafa dañuy am problème dégg nga pour faj tamit biir buy metti waaw parce que c'est un un pouvoir vasodilatateur voilà comme kaani xam nga boo sojee nii boo lekkee kaani da ngay gis euh, comme ton ne n'est-ce pas voilà gingembre ne joue boobu rôle c'est un pouvoir vasodilatateur mais nag nit ñi bu ñu ëppal Mhm. parce que comme ça pique ah, ah dina la gaañ. loo gis rek équilibre la danga ciy lekk tuuti boo ci lekkee tuuti nga gis bien yi. na ku nekk fas sa kanam ci plateau bi Marie Gueye man jaajëfal naa euh, bu baax yéen ñi nag duñu seetaan xam ne da ngeen ñoo safoo ak saxoo yéen laay euh, waxal lu baax ci euh, gingembre jinjeer nag ñu koy faral di lekk duñu manqué énergie teg si tamit duñuy faral di sonn noonu jinjeer baax na ci ballonnement baax na ci diarrhée chronique nu mu baaxee ci diarrhée chronique noonu tamit la baaxee ci constipation ñi nga xam ne dañuy faral di am ay problème de digestion déedéet lekk jinjeer baax na ci jinjeer tamit dina faj lii di fièvre dina faj yenn maladies infectieuses yi rawatina ñoom i bronchite sëkkët grippe ak ñi nga xam ne dañuy faral di am ay euh, maux de gorge jinjeer tamit euh, baax na ci euh, métitu bopp baax na ci rhumatisme baax na tamit ñi nga xamal ñi nga xam ne dañuy faral di am ay nausées rawatina jigéen yu wérul yi maa ngeen di diggal ngeen di naan lii di jus jinjeer wala saay boo leen di togg ngeen def ko ci seen biir togg ñi nga xam ne tamit dañuy faral di am ay métitu directement saay boo leen xëyee fajar jël leen benn kuddu jus jinjeer a ngeen benn kuddu kafe euh, jus jinjeer a ngeen def ci siton bu leen neexee dina tax seen maux d'estomac yooyu dina wàññeeku ñi nga xam itam dañoo amee jabet maa ngi di diggal la ñuy euh, lekk jinjeer jinjeer nag baaxul rek ci nit baax na tamit ci mala yi lu ci mel ni euh, fas ku ci sa fas amee colique dee koy jox mu lekk jinjeer baax na si lool képp si ci am waaw téléspectateurs yi rek laa xamul nu ma leen di def moo tax damay obligé wax ak yow rek <laughs> <laughs> mel ni jinjeer a ngi bëgg a baax nag voilà jinjeer a ngi bëgg a baax jinjeer ay vertu am bëri na lool mhm. euh, te relaté nga ko wax nga ko bu baax euh, ci li nga xamante ne moom mooy te dañ koy marier bu baax comme épice ci mhm. crevette ak gis nañ tamit kuy togg ginaar ak yu demee seen at lu mu mënta doon rek baax nañuy boole suñu togg jinjeer waaye nag buñ si ëppal comme ni ko mhm. Marie Gueye euh, waxee xadi di nga indi togg yi prochaine fois wala indiwuma ah <laughs> baax na ba ba jeudi. besoin de Marie Christine. kanam laay sax commencé fas parce que yéen da ngeen maa commencé fukk waaye ci kaw ne plateau kii bi jeex na moo tax lu la neex waxal. ci kaw loolu. ci kaw loolu nag euh, Marie Christine ñu ngi koy remercier bu baax ci li nga xamante ne andi na ko ci euh, plateau bi ci ay waxi kese euh, di ko jox rendez-vous nag xam naa ne mercredi dina ñëwaat indi beneen plat ñu jàll nag bisu ci li nga xamante ne moom moo di xibaar yi ci kàllaamay Kocc Barma